deug yàlla yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ter dafa ne la'ana allahu al-mutashabbihina bir-rijal min an-nisa wal-mutashabbihati bin nisa min ar-rijal hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bi nek ci sahih mom Sahih Bukhari Sahih Muslim yi rahmatullahi alayhi wa yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla rëbb na góor ñi nga xamanteni dañuy nuru nuru jigéen yi wala jigéen yi xam dañuy nuru nuru lu góor yi ba nga xamanteni jup lépp lo xamanteni ba pare amna ci yeneen riwaya yo xamne daf ci gëna deugër manam ci seen melo wen ci seen doxalin ci seen Euh, solin wala seen for maam lépp loo xam ne daal góor ñi ñoo ko jago nga jël jox ko jigéen ñi donc euh, euh, à vrai loolu li mu gën a nuru yàlla nag moo xam mais li mu gën a nuru mooy ne nekkul loo xam ne lu dagal la loo xam parce que tamit beneen affaire mi ngi ci biir mooy da ngay xëcc kooku noonu mu am maanaam pas mu yor jikkoy jigéen mais ñu koy tooñ par exemple góor la tuuru jigéen la yor wala jigéen la tour góor la en tout cas ala kul hal kep ko xamantene ne na gis ne touram lolu la mel euh c'est sûr que ñaawlu lu koy gëna def ko rafetlu ñaawlu lu koy gëna def te rafetlu ak quelle que soit la raison bu wara mëna tax motax nak li nga xamantene inshallah mom dal moy gën ci walu gogo moy di ko bañ def wallahu taala legui est est-ce que mën nga màgg changer ce tour waaw loolu tamit mun naa nekk comme li nga xamante ne moom lañu la wax sànq ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xamante ne bi ñu tuubee dafa changer seen tur niki noonu euh, euh, bëri na ñoo xamante ne tamit ginnaaw bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam xamee seen tur ci la ko changer ndax tur bi nekkul tur bu rafet. déedéet tur bu rafet de toute façon bokk na ci li nga xamante ne àq la boo xamante ne waajur da ko ameel doomam mooy mu tuddee ko tur bu rafet. Seydina Omar radiyallahu taala anhu dafa am benn waay bu ñëw ne ko sama doom a ngi nii respecté mu ne ko waaw mu téye xëcc doom ji ne ko yow respecté wuloo sa baay mu ne ko c'est parce que mu ne ko mu ne ko waa dama lay laaj yow amirul mu'minin maanaam euh, nan des mu ne ko dama lay ndax euh, ndax doom moom tamit amul ay àq ci kaw waajuram amul ay droit Muna ko ankay mu ko lan la mu ko mu ko yaay ju bax mu ko benn muna ko ñaareel ba mu tuddé ko tur bu bax mu ko muna ko ñetteel ba mu yar ko yar bu bax mu ko muna ko amma sama baay bi nak mom dafa fekk jigen juy taxawalu mu tak ko mom moy sama yaay niki non bi ma juddoo sama joxuma tur bu rafet <laughs> jo alal la ma tuddé manam lu lu ñu def rek non non rek quelque voilà moy voilà mooy un n'importe quoi loolu la ma tuddee <laughs> euh, euh, ma ma ma ni noonu tamit yaruma benn yoon Seydina Omar radiyallahu anhu xool baay bi ne ko yow yaa ñàkk a respecté sa doom d'abord avant sa doom di la ñàkk respect jóge leen fi kon joxe tur bu baax dafa bokk ci li nga xamante ne lu euh, respect bokk na ci tamit mooy tur importance bi nga xamante ne moom la am te ñu bari bàyyi wuñ ko xel yenenti euh, euh, alayhi ko changer ba wax yu parce que tout bu rafet dafa euh, dafa important ci nit d'ailleurs sax masalan par exemple ci ku melné abou Lahab Lahab Lahab xam ngeen xoolal subhanallah mooy la seule personne bi alquran tudd nommément wax tur turam wax ak alkandem tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghnaa anhu maluhu wa ma kasab sayaslaa naaran zaata lahab comme turum safara bu xam ne borom tak takk la comme turum maanaam tur ni mu mën a xëccee nit niki noonu motax par exemple euh ci euh mimiya mimiya bi moy mooy alqalbu minniya fi zal qalbi qad salima min kulli raynin wa rahman qad alima xaj qasida bobu Cheikh Ahmad Bamba radhiyallahu anhu bimu ci wax di tag yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ba wax histoire Badar Badar mune yenenbi yonent sallallahu alayhi wasallam jour bobu mune Abu Jahlin muy wax ci Abu Jahlin ni mu melone ak manam liko dal vraiment parce que Abu Jahlin mune mu ne law kaana salima maqulin la salama parce que xam nga jour boobu Abu Jahl nee na gars yi dañu wéet ak moom ne ko ah sawaay nañ waxante dëgg rek est-ce que defe nga ne parce que xeex mi tàng na est-ce que defe nga ne Muhammad mii li muy wax dëgg la mu ne oui bien sûr que li muy wax dëgg la parce que mais ñun ak ñoom banu Hashim ak ñoom ñun bañu asat maanaam ñaari <laughs> tribu yi dañu mës di concurrence saa yu ñu ne leen ñun am nañ ko am alal ñoom ñu ne ñu am nañ ko am alal buñ ne leen am nañ kilifa ñu ne am nañ kilifa am nañ ko mel nii am nañ ku mel ne waaw ñoom buñ ne am nañ yeneen ñun fan la ñuy jëlee yeneen <laughs> mais maa gën a xam ne li muy wax dëgg la mais nag dinañ ko dinaa ko xeex ba ma dee mbaa mu dee moo tax Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu bu fekkoonte ne nit ku borom xel la jour boobu bu gisee événement bi ni mu commencé démé rek konon ton dina muccu mu ne waaye lakinnahu jarrahu nisfu ismihi lirada fa hazza kullu musamman min sumahu sama lakinnahu waaye dafa fekk ne mom nak jarrahu da koo xëcc nisfu ismihi genn walu turum moy jahlu jahlu moy rir ignorance genn walu turum bobu moko xecce lirada yóbbu ko ci torox tànge ndax lan mu daal di joxe ben règle bu générale kullu chance chance tur bu kullu musamman bu jox bu sama day di bis min proportionnellement ak proportionnellement ak proportionnellement la chance di motax gis génération yu bees nga gis ci ñoom ay tur yu rafet ñuy tudd ay Muhammad ay Ahmad ay Omar ay Aboubacar ay Ousmane ay Aïcha ay Fatima ay Mariam ay et nga topp loolu xamal ni xeet boobu noonu yaakaar nañ ni bu ñu demee fii ak vingt ans trente ans fekk ñooñu màgg ñooñu noonu xeet boobu xeet bu yaakaaru la mais xeet boo gis ñuy tudd tur yoo xamante ne yal nañu yàlla sàmm kooku yaakaar gi day xaw a wàññeeku ndax lan ndax règle d'or bobu non fa xazu kullu musamman noonu sumahu sama chance su borom tour bu nek day évoluer selon tour wallahu taala. mais juróom-ñaari jikko yi ñuy wax kon. ah lolu man xawma ci dara. waaw lolu xawma ci dara. wallahu alam ala kulli halin nit ki touram mom selon ni mu tuddu day dina am ay caractéristiques yu nek ci mom selon ni mu tuddu te lolu noonu ku ko sétlu dina ko gis ku jël benn tour xol ñi yor tour sangam yépp mu xool leen di dajale après mu xool ba xam ba pare mu xam leen bu baax tuuti dina xam ne dinañ am ay traits de ressemblance yu ñu am ci seen caractère kooku ko seetlu dana ko gis loolu tam parfois sax da ngay gis boo demee internet parfois nga def benn tur nga xool souvent da ngay gis dina la wax ne la ñi yor tour bi dañuy <laughs> mel nii mel nii mel nii am na en tout cas am na études yu ñu ci def daal voilà loolu mooy ci turu tubaab yi xaw ma ne voilà <laughs> voilà <laughs> kooku c'est une euh, c'est une vérité xoolal te lii gën a dëgëral wax jooju mooy li yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon bi yahood bi par exemple tuddee ñaari mbaamam yi kenn ki Aboubacar kenn ki Omar radiyallahu anhuma après mu kenn ki bu koy dàq da koy dóor acca Aboubacar demal ci des acca Omar ba benn am mbaam bu ko wéq ci bët bi bët bi toj ñu wax ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam la parce moo gën a dur <laughs> kooku la <laughs> moo moo ko wéq bi ñëwee ñu xam ne kooku la waaw yal nañu yàlla sàmm ba baax saara waaw question bi kii day laajte ndax euh, salaire commercial mm. donc ñuy jaay ay kii ay service yooyu ndax euh, salaire boobu dafa xaram bi ñu xamee ne ne service yu muy jaay des fois dina ci dina ci am ay fen yu mu ciy dugal daal mm. ndax salaire boobu xaram na wala xaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith Rifaat ibn Rafi radiyallahu anhu dagn ko wax ne ko d'ailleurs moy premier dagn ko laaj ne ko ayul kas afdal ban façon liggéey mo geun mune amal amalu rajul bi yadihi wa kullu bay'in mabrur jeufu bi nga xamne nit ki da koy def ak ay loxom ak bépp commerce bo xamantene lu bax la mabrur bi nak bu bax bi moy ay fen bi ci dugg ay woraate du ci dugg ay caaxaan du ci dugg ak yu mel noonu loolu nag euh, lii laaj bi nii dellu siwul delluwul ci commerce mais li muy dellu ci liggéey bi la maanaam delluwul ci commerce parce que kii commerce moom mooy wax wala du ma mais liggéey bi ñu la liggéeyloo nga di ko def di ci dugal ay caaxaan maanaam di ci def loo xamante ne dafa xaram loolu ci boppam mooy xaram parce que par contre nag du mënuma taxaw par contre à vrai dire mënuma taxaw ne li muy liñ koy jox lépp day xaram parce que tout simplement daf caa defaale lu xaram waxuma loolu parce que dina def tamit loo xam ne dagan na kon du ma ne lépp a mais daal lënt lënt mi ngi ci lënt lënt subha ambiguïté mi ngi ci biir parce que lan parce que daf cee boole lu xaram donc euh, comme dafa xaram nag li nga xamante ne moom moo gën mooy mu bàyyi duñ ne ko bàyyi liggéey bi mais dañ naan ko deel wax dëgg del wax dëgg même bu dee li ngay jaay du bari mais waxul dëgg parce que yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa hadith Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu mu ne muy ci saxex yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne booy jaay mu ne mu ne booy jaay ah, da dani dani ah, ah, idas asdaqal ba ba bàyyi aani buurika fiihima képp bu fekkente ne fekk mu ne ko laa tabi ay maa lay sàndaka bul jaay lu bokkul lu nekkul ci yow maanaam bul jaay matériel boo xam ne amoo ko présent wul ba nga téye ko mu leer ma ne lii maa ko moom bul ko jaay mu boole ci ne ko ñaari jaaykat yi bu ñu dëggoo yàlla day barkeel ci seen interaction mu ne waaye su fekkente ne ñoom ñaar dëgguwuñu maanaam am na kenn ci ku wor ki ci des rek yàlla day dindi barke bi ne ci interaction boobu loolu moo tax moo tax sax borom ko xam yi rahimahullah ñu ñu ne képp koo xamante ne xam nga ko ci ne wóorul wala day wax li muy wax du dëgg kooku bul jëndee ci moom parce que la parce que yow mën nga sincère mais moom bu sincère wu barkeewu li nga jënd yàlla du koy dindi te moom moo ko waral imaginer loolu yàlla nañu yàlla sax wallahu waaw question bi kii day laajte ndax am na saar yoo xam ne ci alquran hmm. baax na pour ñu koy jàng daal bés bu jot waaw non question bee passé mooy est-ce que am na ay saar yoo xamante ne yan ñoo gën a important daal voilà bii mooy est que am na yoo xamante ne mën nañ leen jàng ko bis bu jot waaw a ah, am na ay ah, ah, en fait li ñuy wax fadailul euh, Qur'an saar yi wax ci hadith yi wax ci ngëneelu al Qur'an yi ci wér bëriwul yi ci ëpp dañoo daif mais nag yu daif lañ yoo xamante ne dañ leen di jëfe ndax la ci fadaayilul a'mal lañ wax comme ni ñu ko gisee woon ci bi ñuy wax xadis bu daif donc ci kaw loolu dañuy wax ne am na ay saar yoo xamante ne wax nañ ni baax na ñoo jàng niki ay borom xam-xam suñu borom xam nga suñu suñu loolu tamit am na solo mooy suñu borom day def ay borom xam-xam da leen defal ilham mooy da leen di inspiré léeg-léeg loo xam te ne dañu xam ne lii nii la fekk mosuñu ko jàng fenn mais yàlla moo leen inspiré loolu ñu essayé ko. gis ni résultat bi en tout cas li ñu mën a wax comme li alquran wax wa nunazzilu min alqurani ma huwa fihi shifaan wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimina illa xasaara yàlla ne ñun ñoo wàcc alquran lépp nekk loo xamante ne saafara la ba pare yërmande la ñeent jullit ñi waaye nag du jariñ ñiy tooñkat yi mooy yéeféer lu dul lan ak ñàkk perte nga rek la leen di indi kon ci la ñuy xamee ni alquran lépp loo xamante ne jàng nga ko wala jël nga ko ci wala yu mel non ngir lu ko lenen loolu dalay jariñ andak suñu bor yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam rot na ci ay hadith yu wir yu mu wax ne par exemple suratul ikhlas da dafay tolloog ceeru alquran lu démé nek suratul fatiha comme niko mbolo ci bu rafa wax bu ñu mel al basri xadisu wa hasan al basri mursalan amna kenen ci sahaba yi radiyallahu anhu mawqufan la Euh, du Zubair ibn al-Awwam Zubair ibn moo tax mu fàtte turam mais ala kulli xaalin euh, euh, benn aaya fatiha mi ngi tolloog dix alquran yu ñu jàng yëpp lu jeex maanaam dix fois kaamil bi la tolloog niki noonu bu ñu xoolee kon saar yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a mat jàng vraiment suratul Fatiha li muy tuuti tuuti moo gën a mat moo ci gën a ëpp moo ci ëpp doole moo gën a diis ci alquran niki noonu am na ay ayatul kursi yi masalan mais yooyu duñ saar ay aaya la ayatul kursi yi par exemple dafa baax a jàng nekk na aaya yoo xamante ne masalan di ko jàng euh, day indi protection ak yeneen i barke yoo xamante ne mi ngi ci selon nag parfois am na ay nombre yu ñuy jàngee saar yi ak et cetera yoo xamante ne dañuy jariñe lu demee nekk suratul Waqi'a sóoratul waaqi'a par exemple rot na ci ay xadis mais yu wérul parce que xadisu Usman ibn Hanaf boobu naan doomam yi ah, ah. Ah. waaw boobu maanaam dafa feebaroon du kooku la hmm. doo ibn Mas'ud boobu laay wax bu ndax euh, kii bi sanad bi wér na lu mu wax dane baax na ku koy jàng hmm. doo pauvre doo doo kii doo pauvre d'accord voilà kooku Ousmane ibn Hanif la radiyallahu anhu boobu laa moom laa doon wax da voilà voilà moom dañ koo fekk voilà mu tëdd di euh, voilà euh, guddi gi di sukuraat doon voilà doon sukuraat ñu ne ko acca Eh, sa doom yu jigéen ñi loo leen di bàyyil sa alal léegi mu ne non non man inquiété wu ma pour ñoom parce que jàngal naa ren sootul waa xeer dañ koy jàng guddi gu jot. mais nag en pratique ku ko pratiquer dina seetlu ne bu koy jàng yàlla da ko yokkal wërsëgam. guddi gu jot niki noonu sooratul mulki sooratul mulki tamit bokk na ci saar yi nga xamante ne am na ci xadis yu wér yoo xamante ne day wax ne day taxa boo koy jàng guddi gu jot day taxa mucc ci mbugalu bàmmeel bokk na ci euh, lu demee nekk sóortu sajda ak sóortu duxaan ak sóortu yaasin ak sóortu rahman bi su ajjuma bokk na ci euh, sóortu qul yaa ayyuhal kaafiruun nga xam ne day day day tolloog kaaru alquran bokk na ci sóortu izaa zulzilat yi nga xamante ne yéen bi saa salaam nee na moitié wu alquran lay tolloog et cetera donc daal sar yi nga xamante ñom ñoy euh, yi ah yi jariñ bari nañ suratul Kahf bi bisu aduma voilà par exemple ak so voilà suratul Rahman ndax bisu àjjuma sóoratu Kahf Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni boko jange jàngee day maanaam day mel ne sa diggante ak kaaba gi yalla da koy leeral liko dalé ci aduma bi ba aduma bi ci tegu ba aduma bi ci tegu voilà suratul Kahf mooy dix-huitième saar bi et cetera donc daal ala kulli xaal mi suratul baqara ak ali imran yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne par exemple saar bu ñu kër gu ñu jàng suratul baqara seytaane du fa leen suratul baqara parce que suratul baqara dafa mu ne ba pare koo xamante ne da koy jàng wala da ko mokkal wala da koy jàng mu ne laa yastati albatala ñu laaj lan mooy albatala mu ne mooy as-sahara maanaam njabarkat yi duñ ko mën a laal et cetera donc ak yeneen ak yeneen yooyu ci saar alxuraan loolu moom du jeex ngëneelu alxuraan li ci nekk alxuraan mooy li nga xamante ne moom ngëneelu de toute façon doy na ci ngëneel mooy li yeneen ci sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi nekk ci sahih mu ne euh, alxuraan xaraf boo ci jàng bu nekk am nga fukki fukki yiw fukki tiyaaba waaw mu ne waxuma alif lam mim mooy benn xaraf mais dama ne alif xaraf la lam xaraf la mim xaraf la niki noonu yaay Aisha radiyallahu anha ci xadis bu nekk Sahih Muslim mu ne alquran képp koo xamante ne danga koy jàng mais di am ay problème yow di am ñaari yiw ñaari yiw amma ki nga xamante ne nag moom da koy jàng te amul problème kooku moom ak kiramul bara la ñooy ànd moom comme ci safara yi la ànd maanaam mooy malaaka yooyu hmm. moom ak lay tolloo ala kulli hal alquran gene li ci nek du jeex yalla nañu yalla sam te xiirtal ñu ci ñu jang alquran yalla nañu yalla sam ci xiirtal ñu ci jang alquran lool nak ñu def ci ben parenthèse bu gudd bu ndaw parce que bëgguñu gën gëna guddal comme ni nga xamante ne moom moo nekk nii mais euh, maa ngi leen di xiirtal di xiirtal sama bop d'abord di leen xiirtal yéen ñëpp ci ñu bayyi xel ci di jang alquran parce que tamit normalul buñu bëgge wacce kamil masala ñuy ne am ñett nit ñent nit wala ñoñu rek ñoy mëna jang c'est pas normal parce que alquran bi dañ ko war a jàng dañ ko war a jàpp mooy téere bi yàlla wàcc ci ñun alquranul karim mooy téere bi nga xamante ne euh, euh, li ci nekk ci kéemtaan li ci nekk ci yiw li ci nekk ci mbaax li ci nekk ci barke nekkul ci leneen nekkul ci feneen kon nag njàngum alquran dañ ci war a yittewoo muy góor muy jigéen ba noppi euh, bis bu njëkk ñuy jàng alquran ndax alquranul karim waman yurid ridan mën a ah, قرب من مولاه فليقرأ فلنقرأ آه، ومن يريد قلت ومن يريد رضا الرحمن فليثبت التدبر القرآن ومن يريد آه، قرب من مولاه فليقرأ القرآن لا ينساه شيخ محمد بامبر رضي الله عنه داني كيب كو خامتيني داغا بڬ غيرمال بوروم سبحانه وتعالى نغي ساخو دي سيفنتال القرآن كيب كو خامني داغا بڬ جيغي يالا نك نغي جان القرآن طول الجور بوكو باي شيخنا تيجاني رضي الله تعالى عنه داك ني خيرتال سي ني جان القرآن مو na ngeen di jàng alquran au moins ñaari izi par jour au moins ñaari izi par jour saari alquran yi même bu fekkente ne nit ki mënul yeneen yi mais na ja na fexe nay fexe di jàng au moins limu mu man te nañ bàyyi par exemple wooy man am mayata rek laay jàng <laughs> am mayataak suuf déedéet bu dee mën nga liir am mayataak suuf mooy mën nga liir yeneen yi mm-hmm. mooy mën nga liir yeneen yi jàng bi day metti début bi noonu la mel amul fii lenn lu ñu bëgg nekk nekk milliardaire xam ngeen ni mu jafe jafe naa ah. waaw léegi ngeen bu defee ne def àjjana day àjjana ni mu neexee ngeen defe ne ah xool leen xool leen moo tax Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu nee na ah ah ah, ah, ah fa yaa ajaban mimman fa yaa ajaban mimman yahrabu naara naa'iman wa man yatlubul janaat wa huwa la'ubu yéemu naa ci ki nga xam ne day daw safara fekk mi ngi nelaw te di nelaw ne day daw safara bâtiment baa ngi tàkk mu tëdd di nelaw wooyu bâtiment bi tàkk di mu tàkk ah. wooyu bëgg naa rëcc ah, mais bon mais bon di di nelaw safara àllaaxira bee gën ko metti fuuf te nga xam ne diggante nit ak dem safara mooy dee bu fekkente ne teguwul ci yoon bi mu war a teg ngay nelaw doo def lu baax lu lew tax a mucc seytaane nelawul la seytaane te dafa waat ne wallahi dana la dugal safara moom daf ko waat nee na wallahi danaa la dugal safara nit ku nekk noonu la ko défier te fokk dana la fa def dana la jàpp dugal la biir safara yow yaa war a fexe ba doo fa dem ndiki noonu aljanna mu ne waman yatlubul jannaati ak ki nga xam ne day sàkku aljana wa huwa la'ub moom foo lay nekk temps bi ngay toog ci di seetaan ay film ci di seetaan ay feuilleton ci di seetaan ay série ci di seetaan ay émission yu kenn xamul lu mu doon yu jëriñu dara ay 24 chrono xaw euh, euh, euh, ak ak bi ci def nan la dina di <laughs> waaw